ñu dikkaat ak yéen ci suñu émission Al Mounawir fii ci Dakaractu ñu fas yéene tey joxe ay ñaan yu am solo ñu jëlee ko nag ci téereb Serigne Souhaïbou Mbacké ibnu Xaadimu Rasul bi tudd Qurratul Ayni ñu ah, ñaan yu am solo di ñaan yu mat a bàyyi xel bi ci njëkk nee na ku julli ci guddik àllarba maanaam talaate ci guddi war a xëy suba ci alarba nga julli ñaari rakka rakka bu njëkk bi nga jàng ci fatiha une fois euh, qul a'udhu bi rabbil falaq di fois maanaam fukki yoon rakkaam ñaareel bi nga jàng fatiha une fois qul a'udhu bi rabbin naas dix fois fukki yoon nee na loolu boo ko defee ci guddik euh, àllarba talaata ci guddi mardi ci guddi war a xëy suba muy àllarba boo ko defee naafila googu ci guddi googu nee na juróom-ñaari asamaan yi asamaan su ci nekk soixante-dix mille waxuma soixante-dix de mais soixante-dix mille malaayika danañ fa taxaw di la bindal tuyaaba ba keroog bis penc kon loolu lu am njëriñ la mu ne law anzalna hada al qurana ala jabalin la taxu euh, ba ca euh, saar ba ku ko jàng benn yoon ñu jéggal ko ay bakaaram bokk na ci li nga xam ne nit ki war na koy def bis bu ne tamit di ko yéene ay waajuram nga xam ne dina taxaw taxawaayu àqi waajur boo ko defee mel nga ne boo ko def mel nga ne àq yàlla waroon ci say waajur matal nga ko mel na ne amee la too leen àq ana loolu mooy lan sëriñ Souhaïbou Mbacké nee na waxtu julli boo julli wala boo ko mën waxtu julli bu dee bis bu set nga def ko benn yoon mooy da ngay jàng fatiha benn yoon ayatul kursi benn yoon qul yaa ayyuhal benn yoon lexlaas muy xolof laa waxat ba mu jeex fukki yoon ak ben manam 11 fois euh, dal di jang tamit falaxi falaxi ben yoon nasi ben yoon bu ko defé nga dal di koy yene say ñaari wajur dan yow sama borom li ma jang ñaan ko yalla nang mako defal ci ruux ak sama ñaari wajur ta nga def ko nak muy ak jéggel di ak lèr di yermandé ci seeni biir bamél bu la sax man nga ci bolé wala sa bop ci sama ko ruux ak ruuxi sama ñaari wajur ak sama doom wala ak ruuxi ku la neex rek man ci kon loo am njëriñ la sëriñ Souhaïbou Mbacké nee na boo bëggee mucc ci mbëggalu bàmmeel ak rekki ngëm nee na na ngay moytu xool jigéen boo takkul euh, ak fenn na nga koy moytu di moytu jëw ak rambaaj wor ak ñàkk ferlu cim saw maanaam nga nekk nga nekk di tuur ndox di saw euh, xaaroo ba lépp génn ba mu set nga wisu dem waaye nga yàkkamti commencé di tuur ndox rek ba ca digg ba wa sax ba mu set rek nga daat ko fay dagg dem sa yoon bu ko fay la ci dess ci saw yépp ci sa loolu bokk na ci li nga da dafay waral mbugul bamel. kon boy tour ndox da ngay taxaw ba lepp set ba lepp genn nga di wisu jël ndox mu sel dat dat cee laablu boo dee jàpp nga Nolit bo dee dem nga soga dem loolu ñu nañ koy moytu nee bo it mu ci ci mbugul bàmmeel na ngay saxal julli ak di baril tudd yalla ak julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ak jàng alquran ak sak sarah te neena bis bu ne nga def alayka ayuha nabi wa rahmatullahi taala wa barakatuh nga koy def yon assalamu asalaamualeyk ayuha nabi wa rahmatullahi wa barakatuh boko ko def téeméer yon bisu set di nga muccu ci mbëgulum bàmmeel ñaan gu ñi ñaanal ku faatu nafile gi julli la go xamne dañ koy jullil ku faatu ana nokoy defee bo amé sa mbokk mu faatu mi ngi koy gëna soxla nak ci première guddem guddi gi mu jëk faatu ci la koy soxla ba ci ñettelu guddi ga dana ko soxla nak ci guddi yépp waaye fofu la koy gëna soxla man nga ko defal ku faatu man nga ko defal yow sa jëm bop ta fekk yaa ngi dund man nga ko defal sa waajur ta fekk ñi ngi dund man nga ko defal julit ñepp man nga ko yéene ku la neex euh neena da ngay daldi taxaw kabar di yéene sa ci sa ci sa xel bala ngay kabar di wax ne julli gi may bëgg julli kat maa ngi koy fas yéene defal def maa ngi ko maa ngi koy fas yéene def ngir ak jaamu yàlla taabudan lillah dana yow sama borom yàlla nag ma ko defal yàlla nag ma def yàlla na ko def nag yàlla nag yàlla nag ma defal leer gi yàlla na ko def tuyaaba ji yàlla nag ko yàlla nag ma ko defal ci ruuxu diw sàngam wala ci ruuxi diw sàngam wala ci ruuxu ak diw ak diw ak diw la neex fekkee mbooloo ngay ñaanal nga fekkee say waaj ñaari waajur nga ne samay sa bopp nga ne sama ruux nga daal ne yàlla na ma ko yàlla defal ci ruux diw sàngam te def ko muy ak njéggal di ak leer di yërmande ci biir bàmmeelam nga daal di kabar nga daal julli ñaari rakka rakka bu njëkk bi da ngay di jàng fatiha benn yoon ayatul kursi benn yoon alhaakumu takathur benn yoon ak lexlaas fukki yoon ak benn maanaam onze fois rakka bu ci nekk loolu ngay jàng fatiha benn yoon ayatul kursi benn yoon alhakum takathur benn yoon lixlaas fukk ak benn bu ko defee boo sëlmalee nga daal di wax lii daal ne allahuma inni sallaytu hadihi salata wa taalamu ma uridu biha allahuma ibaad thawaaba ila qabri diw sanga wala ila quboori bu fekkee mbooloo lañ boo ko mënul wax ci arab na nga ne yow yàlla julli gii ma julli xam nga li ma ci jublu li ma ci ndam mu xam nga ko yal nag ma ko defal tuyaaba yal nag ma ko defal ci ruuxuk diw sàngam da nga wala ci di ruuxuk diw ak diw ak def ko muy an jégal de ak leer seen biir bàmmeel nee na julli gi képp koo ko defal dees na ko jéggal euh, te deesu ko kenn du ko mbugal ci biir bàmmeelam te it dees na ko yërëm te dees na ko defal ay xéewal yu baree bare ci biir bàmmeelam moom moom ki nga ko jullil te yow mi nga xam ne te it moom moom moom mi nga ko jullil dees na ko booleeg ñaari malaaka yu koy wettali ci biir bàmmeelam ba keroog bis pénc julli gi képp koo ko defal des na ko booleeg ñaari malaaka yu koy wettali ci biir bàmmeelam te dees na yaatal bàmmeelam euh, des na ko jéggal te kenn ko mbugal moom moom moom moom ki nga ko defal euh, yow mi ko def nag yàlla dana la ca faye yow mi ko ko defal yàlla dana la ca faye balaa ngay faatu euh, danga gis sa kër ci aljana kon julli gu am solo la nee na ab néew ab néew bu ñu ko bu ko gasalee bàmmeel ku bind ca biir bàmmeel ba fa féeteeg penku ci biir bàmmeel ba fa féeteeg penku nga bind fa Fatimatu Bintu Asad Fatimatu Bintu Asad nee na loolu néew boo ko defal kenn du ko mbugal bu ñu gasalee am néew bàmmeel ba koy bëgg a dugal ci bàmmeel bàmmeel bi nga dem bind ca penku ba nga bind ca Fatimatu Bintu Asad néew boobu moom kenn du ko mbugal ci biir bàmmeelam kon loolu lu ma ta bàyyi xel la boo demee ci ab bàmmeel tamit. nga ñëw ci kaw bàmmeel bi nga bind ca Ibrahima ibnu Adham nee na buñ ko doon buggal sax dañ koy arrêté ci saase loolu moom aw la woo xam ne koo ko bind ci kaw bàmmeelam kenn du ko mbugal Ibrahima ibnu Adham même buñ ko doon buggal dañuy daal di arrêté mbugal mi nee na ku bind basmala maanaam la rahmaani rahim 70 fois basmala mooy bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim nga bind ko ba muy fois mooy juróom-ñaar fukki yoon nga dugal ko ci biir perkaal bi ñuy sàngee néew bi nee na néew boobu moom kenn du ko mbugal incha allahu rabbi loolu it lu ma a xel la nee na salaatu ala nabi gii ku ko saxal guddi ajuma gu ne donte benn yoon la kon bu ñu lay dugal sa biir bàmmeel yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy tàllal ay loxoom ñu nangu la nga xam ne même ñu lay dugal si biir bàmmeel bu ñu amee gis-gis gisu maanaam bu ñu amee basira gisu gisu batin danañ gis ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di tàllale ay loxoom kon salaatu ala nabi gu am njëriñ la salaatu goo xam ne buñ lay duggal sa bir bàmmeel yonent bi moy talal ay loxom salatu gogu gu mata a bàyyi xel la ana kañ lañ koy def guddik aljuma ana lan moy salatu gi mo nek ni allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin nabiyil nabi nabiyil ummiyil habibil aalil qadril azimil jaahi وعلى آله wa sahbihi guddi aju ajuma a ne donte benn yoon la nga koy def kon bis boo faatoo bañ dugale si biir bàmmeel yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen nangu ci loxom yi tëddee nee na salaatu ala nabi gi ku ko saxal bis bu ne fukki yoon ajuma ju ne téeméer yoon kon di nga bokk ca mbooloo may dar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam salaatu ala nabi googu nag moo nekk nii salawaatullahi wa malaikatihi wa anbiyaihi wa rusulihi wa jamii xalqihi ala sayidina muhammad وعلى ال سيدنا محمد وعليه وعليه السلام ورحمه الله وبركاته كوكاي سخال بس بو نه فك يون اديو مجي نه تيمير يون داغا بوكو تيا مbolo may dar wala mbolo may and ak yonnati sallallahu alaihi wasallam te kero bis pej ba serigne shaib mbake مي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والقادم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi haqq qadrihi miqdari azim neena kuko wax ben yon ci sa dundu do tabbi sa wara neena kuko saxal bis bu ne téeméeri yon nak des na fajj say aajo far say bakar wuñi say jaxale neena idha jaa nasrullah ñent yon mo kamilu alquran yu tolo manam isa jaa nasrullah ñeenti yoon moo kaamilu alxuraan ñoo tolloo boo jàngee Isa Dia ñeenti yoon yaa ko jàng kaamilu alxuraan yéen a yem suratul euh, euh, suratul kaafiroon qul yaa ayyuhal kaafiroon ba mu jeex boo ko jàngee ñeenti yoon yaa ko jàng kaamilu alxuraan yéen a tolloo lixlaas muy qul huwallaahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ñetti yoon moo kaamilu alxuraan yooyu boo ko jàngee ñetti yoon yaa ngi mel ne ku wàcce kaamilu alxuraan nee na ku lekk ba noppi daal di wax lekkee ba pare nga dal di wax alhamdulillahi allazi at'amani haza taama wa razaqanihi min gayri xawli minni wala quwa boo ko waxee ñu dal day jéggal sa bakkar yépp bakkar moom dootu ko amati nee na boo jullee suba ba pare nga daal di wax bismillahi arrahmani arrahim la hawla wala quwata illa billahi alali azim nga wax ko dix fois seet nga wicc ci ay bakkar comme ba nga juddoo na nga setoon ci ay bakkar noonu nga set ci ay bakkar boo jullee suba ba pare nga wax loolu bismillahi rahmani rahim لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم fukki yoon كون لوليت لو lu باي a bàyyi xel la nee na booy tëdd nga wax bismillahi rahmaani rahim 21 fois bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim ba muy 21 fois sa yoy tëdd nga def ko neena boko defé suñ borom dana la musal ci mbooleem luy xétu shaytané mom dula manal dara ci guddigo googu suñ borom dina la musal ci ab satch ab satch mom dula bet mukk ci guddigo googu nan dalay satch waye suñu borom dina la musal ci deegu met ci deegu bette sa deegu moom du la bett mukk te loolu lu yomb la bismillahi rahmaani rahim 21 fois balaa ngay tëdd nee na ku toog ku toog ci tefesu géej ku toog ci tefesu géej di wàññi duus ya maanaam di wàññi vague ya di ko compter ba mu mat ñeen fukk ba mu mat 40 vague bu ci nekk nga daal di kabar daal wax allahu akbar vague bu ñëw nga kabar wax allahu akbar di ko wàññi ba mu mat 40 vague nee na suñ borom jéggale say bàkkaar bàkkaar moom dootu ko amat di nga set wecc Sëriñ Souhaïbou Mbacké nee na ku wommat ak gumba ñeen fukki jéego ñu jéggal ko ay bakkaaram te da nga aljana ku wommat gumba ñeen fukki jéego ñu jéggale say bakkaar da nga tabbi aljana nee na ko dox ci aajo mbokkum julitam moo xam faju na wala fajuwul ñu jéggal ko eh, ay bakkaaram musal la it ci ak naafeq musal la it ci sawara nee na ko wax allahu akbar téeméer yoon ñu jéggal ko ay bakkaaram allahu akbar boo ko waxee téeméer yoon ñu jégal say bakkaar subhanallah boo ko waxee téeméer yoon ànd ak yéene mel nga ne ku goreel téeméeri jaam alhamdulilah boo ko waxee téeméeri yoon mel nga ne ku saraxe téeméeri gileem waxuma benn gileem de téeméeri gileem alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah nga wax ko ba muy téeméeri yoon mel nga ne ku saraxe téeméeri gileem kon lu mat a bàyyi xel la nee na salaatu ala nabi gi ku ko wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana la ràmm moo nekk nii allahumma salli ala sayidina محمد وأنزله المنزل المقرب منك يوم القيامة nee na salaat ala nabi googu boo ko waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana la ràmm ëllëg yowmal xiyaam nee na salaatu ala nabi gi aussi ku ko saxal bis bu ne téeméer yoon da nga gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lu dul ay nelaw moo nekk nii allahumma salli ala sayidina muhammadin abdika wa rasulika نبي الأمي وعلى آله وصحبه كوكا صاحب بسبون تيمريون دينغا جيس يونتب صلى الله عليه وسلم كيلو دلائن لو نانا صلاة الله نبي جي تمت كوكا واخ بن يون ألغ يوم الخيام كندو لو أوديتي كندو كندو لو حساب سيجف سيجفهم كندو كارغلي صلاة الله غوغو مونيكني صلى الله على نبينا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون كوكا واخ بن يون كندو لو حساب يوم الخيام nee na salaatu ala nabi gi it tamit ku ko wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dana la ramm yow ak say mbokk yépp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dana la ramm ëllëg yowmal xiyaam moo nekk nii allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammadin fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli maalumin lak maalumin lak nee na boo ko waxee benn yoon nee na boo ko waxee téeméer yoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dina la ràmm yow ak say mbokk ëllëg yow man xiyam nee na boo rombee ci aw yoon luy gaañe luy lore moo xam aw xeer la moo xam loo xam ne mën naa nit nga daat koy dindi nee na ñu jéggal la say bakkaar mu ne ilaha illa allah waxdahu la sharika lahu lahu ahadun samadun lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufan ahad nee na ku ko wax benn yoon di nga toog junni jour junni bis yoo xam ne kenn du la bindal bakkaar loolu boo ko waxee di nga toog junni jour yoo xam ne kenn du la bindal bakkaar la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu lahu ahadun samadun lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufan ahad di nga toog junni jour yoo xam ne kenn du la bindal bakkaar nee na ku wax la ilaha illa allahu usfi biha amri la ilaha illa allahu udxilu biha khabri laa ilaha illa allahu laa ilaha illa allahu kon bu salaatu salaatu ala nabi gii nee na ku wax ku wax laa ilaha illa allahu usfi biha amri laa ilaha illa allahu udxilu biha qabri laa ilaha illa allahu uthqilu biha mizani laa ilaha illa allahu urdi biha rabbi laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullah nee na loolu ku ko wax di nga toog ñaari di nga tok junniy bis manam junniy jour yo xamne ken dula bindal bakar nee na ku wax la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu ahadun samadun lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad nee na ku ko wax ñu bindal la ñaari junniy yiiw nee na ku wax la ilaha illa allah ku ko wax ben yon andak ak yéene dees na la ci defal garab go xamne xob ya tol na ne bisi adina xob bu ci nekk di la jéggulul yàlla ba déwén nee na ku bëgg a mucc ci ab noon boo xëyee del jàng ayatul kursi yi ak falaxi ak naas yi nga tëje ko ñaanuk muhammad ibnul waasian mooy allahumma innaka sallatta alayna aduwan lana basiran bi uyubina yarana huwa wa qabiluhu min haythu min haythu la narahu allahumma fa ayisu minna kama ayastahu waxanitu waxanitu minna kama xanatuhu أه، أه، أه، اللهم اللهم إنك صلت علينا عدو لنا بصيرا بعيوبنا يرانا هو وقبله من لا نراهم اللهم فآيس منا كما آيسه من رحمتك وقنته منا كما خنته كما خنته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين رحمت وبين رحمتك إنك على كل شيء قدير لول مهنيان محمد ابن الواسع نينا nga لولو ko loolu dina tax mucc ci luy tax a mucc ci làmmiñ ak cet nee boo xëyee da ngay jàng fatiha benn yoon dal di xool sa ñaari bët jàng fatiha benn yoon ba mu àgg nga daal di gëmm benn bi xool benn bi jàngaat fatiha benn yoon daal di gëmmaat ñaari bët yëpp nag daal di jàng fatiha benn yoon ñetti lay doon benn bi da ngay xool ñaari bët ne jàkk bi des nga gëm benn bi xool benn bi beneen fatiha nga daal di gëmm ñaari bët yëpp nee na boo loolu boo ko defee képp kuy xoolee ñaari bët du la mën a cetu képp kuy xoolee benn bët du la mën a cetu waaye képp koo xam ne dafa gumba it du la mën a cetu fatiha bu ànd ak wa iyakaadu loolu jànkati xam nañ ko nga koy bind di ko sango dana tax sunu borom musal la ci ciat ak lamiñ ku ko xamulit nga wax ko ñi jàng alxuraan ñu bindal la euh, euh sëñ son mbàkke nee na booy tëdd nga jang fatiha ñent yoon mel nga ne wër nga kaaba ga ñett yoon yi yëpp nak waxi sallallahu alayhi wasallam sallam la ku jang l'ikhlas 3 fois mel nga ne wacc nga ab ab ci guddii ku jang mujjuk suratul imran mel nga ko fanane julli surut suratul suratul imran moy walillahi mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli shay'in qadir ba ca ya ayyul ladina amru sabiru wa sabiru wa rabiru taqullah la'allakum tuflihun nena ku ko jang mel nga ko fanane julli guddigi yep suratul dukhani ku ko jang euh, mel nga ne ku euh, bok jangé ci guddii ñu jéggal sa bakkar yep kon bo jangé fatiha ñent yoon mel nga ne wër nga kaaba ga ñet yoon bo jangé suratul ikhlas ñet yoon mel nga ne wacc nga ab kamil ci guddigi bo jangé mu ko imran mel nga ne ko fanané julli bo jangé suratul duhan ci guddi ñu say aha kon lolu mata baye xel la né bo bëggé del baril di def ay istighfar moy euh, astaghfirullah del baril di ko def né na bo jangé l'ikhlas téeméeri yoon ñu jéggal la bakkaari fukki at suratul ikhlas moy xol la ahad bu mu jeex nga jang ko euh, téeméeri yoon ñu jéggal la fukki at nee na yasin yaasin ku ko jàng ñu jéggal ko lu mu mës a def nee na jullig yor yor ku ko saxal yowmal xiyaam jullig yor yor dina dem ba ca kanamu boromam ne ko yow sama borom diw mii daf maa fonkoon fonkal ma ko teralal ma ko kon jullig yor yor lu am solo la sëriñ Soxay Mbàkke nee na ku saxal bala moo bala moo nelaw mu jàng fatiha ñeenti yoon lixlaas trois fois subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim ñeenti yoon استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم فكيون اكسلت على نبيجي اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الانام فكيون نانا ياغي ملني كو فك اب جوليت بو امول دارا nga sarax ko nienti juni dinari ورس نانا مل nga nit ko jang alquran yep ben yon mel nga nit ko aj umra ci at mu ne nena ko amelon bor borit mel nga mel nga ne it ku jënd sa aljana nee na allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi adadi kulli xarfin jara bihi alqalam nee na waxtu julli waxtu timis bu ne boo ko dee def di nga dee ci lislaam insha allahu rabbi nee na allahumma inni aadatu li kulli hawlin ilqaahu fi dunya wal axira laa ilaha illa allahu wa li kulli hammin wa gammin ma sha allah wa li kulli niamatin alhamdulillah wa li kulli raqaa'i wa shiddatin ashkuru lillah wa li kulli ujubatin subhanallah wa li kulli zanbin astaghfirullah ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون ولكل داخل حسبي الله ولكل خضاء وقدر توكلت على الله ولكل طاعة معصية الله ولا ولا قوة إلا بالله boo ko waxee waxtu julli bu ne dañ la musal ci mettitu sukuraat nee na boo feebaree nga daal di jàng ayatul kursi yi daal di jàng law anzalna hasil qur'ana ba ca saar wa nga daal di jàng lixlaas ñetti yoon wax laa ilaha illa subhanaka inni kuntu min zalimin 40 fois muy ñeent fukki yoon nee na ku feebar def ko da nga ca am tuyaabu ju te boo ca faatoo euh, euh, kenn du la mbugal sa biir bàmmeel te danga nga dee yàlla ak ngëm te dees na la bindal tuyaaba yi yoolu ku dee ci jihaat nee boo ca weeree nag des na la jéggal sa bakkaar yépp yu njëkk ak yu mujj kuy lijjanti dara mu jafe moo xam looy xëccoo la lu mel ne examen wala lu mel ne visa ak yu ni mel da ngay jàng ñaan gi allahumma inni as'aluka min kulli hammin faraja ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل فاحشة سترا على كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين مكر في اللولو دينا يومبل سيبير يجي جنتي صلى الله على محمد جلقو قاتلة تجلقو أمسل الله مو غنا غات يجولي نانا بوكا دافي يالا دينا لا بëgg يونس صلى الله عليه وسلم دينا بëgg اوبيل nga sa bop juroom ñaar fukki buntu yermande ta kenn do la bañ kudul ab nafiq nee na boo jëmee ci koo xam ne da ko koo ragal moo xam nit la wala loo xam ne day fàddaate moo xam gaynde wala lu mën doon nga jàng bismillahi rahmaani rahim cinquante fois boo ko tëflee sa kanam lori loola suñu borom dana la ci musal moo xam nag nit la moo xam du nit loolu it lu mat a bàyyi xel la euh, booy dugg ci oto wala ci avion lu wala lu mën di doon moo xam da ngay war aw fas wala da ngay dugg ci oto wala ci avion nga wax bismillahi rahmaani rahim الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين وإنا إلى ربنا لمنقلبون nee na ba keroog ngay wàcc dañ lay bindal tuyaaba nee na ab néew ku bind bismillahi rahmaani rahim dugal ko ci biir càngaay la kenn du ko mbugal waxoon naa ko ci ginnaaw nee na tamit ku bind lii def ko ci biir càngaay ci biir perkaal ba ñuy sàngee ab néew nee na néew boobu kenn du ko mbugal lii ngay bind laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lahu lahu lmulku wa lahu alhamdu يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بوكو بيندي دوغل كو تي بير بركال بي سانغي اب نيو نيو بوبو كين دوكو بوغل تي بير باميلام نانا جاورت الله خسر جاورتو كوكو بيندي سولالي كو اب نيو نيو بوبو كين دوكو بوغل تا دينا تخي نانا اب نيو بو نيو كو دوغلي تي باخما تا سولو غنكو nga tok fa tolok bop ba daldi jang fatiha ben yon l'ikhlas ben yon falaxi benn yoon naasi benn yoon buñ ko dugalee ci biir pax ma te suulaguñ nga toog fa tolloog booba daal di jàng faatee benn yoon lexlaas benn yoon falaxi benn yoon naasi benn yoon nga tëfli ko ko nee na yàlla dana musal néew ba ci mbugulum bàmmeel ak xataay ba ak lëndamaay ba te dana fa tàbbal junniy leer te yow mi ko ko defal yàlla dana la defal tuyaabay junni nit ñu dee ci jihaad te des na la tabaxal dëkk bu rëy ci àjjana jëgën na kawe te di nga am tuyaabay jaamu yàlla ak juróom benn fukki at nena am néew buñu ko buñu koy duggal ci bir pakhma bo jangé ñaan gi allahumma inni asaluka bi jahi nabiyir rahmati bi jahi nabiyyika nabiyir rahma wa tawbati wa turbati tayyiba tayyiba at-tahira wa ma dammathu alla tuhadiba hada mayyit fi qabrihi nena ñaan googu boko jangé buñu duggal am néew ci bir bamelam néew bobu kenn du ko mugal allahumma إني أسألك بجاه نبيك نبي الرحمة وتربته الطيبة الطاهرة وما دمته ألا تحذب هذا الميت في قبره nee na néew boo ko jàng bu ñu dugal ci biir bàmmeel kenn du ko mbugal kon yéen jaami yàlla yi na ngeen xam ne sàkk sarax ak dimbale jullit yi ak jokk ak mbokk na ngeen xam ne na ngeen xam ne sàkk sarax ak dimbale jullit yi ak jokku ak bokku ak siyaare ji ay armel bokk ne ci xeeti jëf yi nga xam ne jëf yu baax a baax la yowmal khiyam yalla dina digal malaika mu wote ci kaw ne ana ñi daan liggéeyal julit yi ana ñi daan sàkk sarax ñu ne ko ñoo ngi nii mu ne dem leen yeen seen borom nee na kenn du leen xisaab kenn du leen xisaab kenn du leen xisaab kenn du leen xiqaab kenn du leen bugal kenn du regle seen i dem leen ngeen dal tabi àjjana yéen euh, kenn du leen xisaab kon loolu lu am solo kon ben sarax des na ci jégal nit tabal ko aljana mok soxnam ak doomam ak kam ko jox mu sarax ko sarax dana musal nit ci bala ak degu ñaaw sarax dana far dana fay merum yàlla sarax dina far ay ñaawteef dana sabara dina safara ay tawat dana nek ak ker ëllëg yowmal khiyam dana yok wursak sarax dina protéger sa alal sarax dana woye dana woyefal xisaab ëllëg yowmal khiyam dana diisal balance yowmal xiyaam sarax sarax dana yombal jéggi siraat dana yëkkati ay daraja ëllëg yowmal xiyaam sarax dana gërëmloo yàlla di merloo seytaane sëriñ son yi mbàkke nee na ku ko man bis bu ne nga saraxee dara lu mu tuuti tuuti donte benn miskit la baax na nee na ko amul lu mu saraxe nag ñaari rakkaay yor yor sarax la boo jëmee ci jumaa wala ci jàkka sarax la boo bu boo jëmee ci jàkka wala jumaa sarax la alham alhamdulilahi euh, sarax la bale jàkka wala juma sarax la digle lu baax tere lu bon sarax la gindi luy gaañe ci aw yoon sarax la wammat gumba sarax la nuyu sa mbokkum jullit wan ko mbég ne sarax la ak euh, doxal ko ci aajoom ak ñaanal ko yooyu yëpp sarax la seeti ku feebar sarax la gunge ab néew sarax la jaala ji sa mbokkum jullit sarax la kon ñu yamale foofu suñu bind tay bi ba yeneen jëmmi jamono di sant euh,